ñu dem Baye Assane Mesere ci li nga xam ni moom mooy euh, li xew démb ci màggal gi maanaam bokk li xew sax barki demb laay wax général Moussa Fall man sax yéex na maa xam ndax moom la ndax ñu toogee ak niñ ko jëlee mu ni daal dafa am ñu bëggoon a yàq màggal gi wala sax dafa am ñu bëgg yàq du bëggoon mais ñu bëgg a yàq mu ne sëñ Mountakha ñooñu moom dinañ ci fexe gar suñu tànk tubay ba du am ndax ñoo ñuy bëgg a yàq màggal gi bu seen pexe sotti woon kon ñun ñi duñ fi ñëw kon mu bëggoon a wan naa bëgg na wane ne dayob sëñ Tuubaa li ko yàlla may bu fekkoon ni yàq rek ay tax kon tey màggal gi du am mu ne nag sëñ bi am na ñu bëgg a yàq màggal gi waaye dinañ ci taxaw ba du am. <laughs> Assane li ah, waaw léegi lan ma fi ñi. ah d'accord dégg euh, ana ñooñu ah, mbaa teg nañ leen loxo wala dañ koo njort. bu dañ koo njort sa ñañ ko njortoon Mhm. bu fekkee ne la nga yàq màggal la boo sàccee téléphone gan mu réer kay yàq nga màggalam ci mm. yàq màggal mooy ñëw def ci loo xamante ni mën nañoo taxaw carrément arrêté mbir mi ba tax seen Muntaxa génn def déclaration si tàng tàng bi ñëpp jaaxle loolu yàq màggal te yaakaar naa ne màggal bi la ko yàq faat na Hmm. mënul am d'accord gars yi ñu ngi naan micro de micro voilà kon xam naa ni Euh, mi ngi noonu Alaaji Asan Mesere euh, fàllu ma nga ca mbir di ko xool mhm. waa Tindo di ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant ñu ngi ñu ngi bind waa mi ngi noonu ngi defar micro baay Asan Mesere incha allah mhm. euh, wala sax ma tourné ci saa bu ko defee la tànk ñuy defar loolu waxoon naa ko ñoom ta nee naa leen tee ñuy jël karawaat yi defee yi lëf li bañal lii mhm. voilà c'est kon daal mu mel ni ginnaaw bi nga nuyoo waa kon daal mu mel ni nee nga ñiy sàcc téléphone dañuy defar seenu waaw dañuy ñëw defaru ba jekk daal di dem démb la gis naa ab sàq ak jóor ñuy direeku ñëpp nuru àndandoo sol seeni mbaxana di direeku. soq ak jóor googu. sàq soq jóor lu tax woo sa baay ba nga ko gisee. Mm-hmm, joxal élage. <laughs> non non da a a wax ak kii mi may tooñ de. mais boo gisee soq ak jóor guy lang Moodu mu leer ñii ay defkat lañ. doo woo sa papa man waxuma la ay defkat lañ de. ah yaa ni dama ne gis naa soq ak jóor si dëkk bi ñii dem nga xam ne ñii ay lan la xam mooy lu ñu doon dañuy màggal si kon soq ak jóor googu la màggal gi moom ku nekk nag li nga fi wut si mën nga ko am bañ nañ ko ba sëñ Bass loolu la wax ku fi ñëw ngir leen loo fa wut ko fi am déformé ku ñëw ngir ko am loolu yàgg na ku ñëw ngir koom da nga ko am ku ñëw ngir yàlla da ko am ku ñëw ngir loo fi bëgg da nga am loolu ah waaw boo fi ñëwoon ngir am iPhone boo jógee tubaa ñëw fi ngir iPhone bala ngaa dem da nga am iPhone def si Pastef rek waaw ah. def si pësteef rek boo ñëwee ngir am yàlla dëgg ah, ah, boo ñëwee nag bëgg yàlla dëgg defal pësteef si bëgg yàlla wala nga bëgg alxuraan def si pësteef <laughs> wala nga bëgg sëriñ bi def si pësteef loo fi bëgg da koy am hmm. euh, ñu ngi noonu kon gërëm nañ ko baax a baax moom Baye Assane Mesere nee na Touba waaye wut si da nga ko am hmm. euh, loolooy li sabab euh, mu ngi noonu topp ne ca ju ba di naan rek xam naa loolu la fi wut si woon mu doon ma ñu yor siti kay naan gi kay moom <laughs> xam naa li ñu naan alaaji <laughs> général Moussa Fall Assane wax na ko mhm. maa ngi ci def benn vidéo sax boo xam ni euh, keroog maa ngi koy leeral ni ko mhm. information yi ñu am man mhm. awuma ko waaye ndax information yi buñ ko amee lu ñu war a wax ci kanamu sëñ mun Muntaxa la wala lu ñuy war a jëf la muy màggal gi am nañu ko bëgg yàq waaye duñ ko nangu waaw waa xam nga euh, général Moussa Fall li mu def noonu technique la Euh, boo xamante ni moom la utiliser. Mhm. waaw peut-être dafa xamul te dégg. Mhm. ay wax yoo xamante ay nit ñu doon euh, expliquer nañ def nii nañ def nii. Mhm. donc nag peut-être ñoom xool nañ. mais gisuñu parce que bu ñu xamoon dañuy dem attaquer ñi nga xam ni ñoom lañ xam étouffer mbir mi mais léegi la fait que xamuñu donc léegi nga ñëw joxe information par exemple nga joxe xibaar boo xam ni même bu fekkoonte ni bi yow dafa am lu am te yëgoo nga wax ne yëg nañ li nga yëgut boo nee yëg naa mën nga jouer ci conscience su ki doon jéem bu mhm. fekkente ni am na maanaam li mu wax technique laa lay wax quoi dama wax mhm. ne boo technique la boo xam ne bii bu ko defee mhm. bu ko defee même bu fekkoon ne am na ku nar mën na ne gaa eh, gars yi mel na ni yëg nañ de dégg nga li général wax peut-être affaire bi mën na tuxu technique la pour sécurité ba tey ci wàllu sécurité quoi. maanaam li wax noonu technique la ci wàllu sécurité maanaam yëgoo dara. waaye nga njort ni sa bon sens jox la ne am na lu war a mën a xew. nga ne yëg nañ mais yëg nañ boobu xibaar la boo xam ni moom nga sànni parce que dafa dem ba ci kanamu sañ sëñ Mountakha wax ko. ne yëg nañ mais peut-être bi muy wax yëg nañ yëgut mais nag. peut-être am loo xamante ni mënoon na di préparer wu. Mm-hmm. ci suuf. Mm-hmm. wala am ñenn ñu doon jéem a xalaat. Mhm. mu yàq loolu nga xamante ni peut-être. Ah, c'est que genre technique de communication. Ah, la lu ñu xamoon du lu ñu gis. waaw bu fekkoon te xam na wala mu gis du def du ko doxalee noonu quoi. Ah, maanaam day dem agir ci jamono ji muy wax. waaw mais jamono ji muy kii day bëlëf quoi maanaam tey bu fekkoonte ni ci euh, dañu nekk ci jeu poker. Mhm. may may wax loo xam ne ma yor carte yoo xam ne weer leer na ma ni. Mhm. li ma yor nii mais xaw ma lu Assane yor. ma napp ko. maanaam bëlëf ko Assane njort ne man maa ngeek lu baax mais fekk yoruma dara mais bëlëf boobu mooy tax Assane daw. d'accord tey bu doon ci poker loolu. Euh, da ngay gis ni loo xam maanaam dama dama jàpp ni dafa bëlëf. maanaam xoox daal boobu waaw bëlëf boobu mën na am lu mu régler mais loolu moom kenn du ci mën a xam dara. Mhm. demee ba nga kàttanu borom bi jàmm am nit ñi ñibbi. Mhm. bu boobaa euh, ñoom mën nañu defaraat. xibaar boobu wax ne bon am na yoo xamante ni bii yëgoon nañ ko kërëb kërëb daa dee gën a kiiwal affaire boobu quoi parce que. Euh, doo bàyyi mu seet maanaam du wax ji du neen daal. non wax ji du neen wax ji. bu amul wax la joo xamante ni bii tey. waaw mën na sabab sax sécurité am ci màggal ji. Ah. waaw wax ji. Ah. waaw parce que wax ji. Euh, parce que màggal gi mooy màggal gu ñu mës a wax ne lu mel noonu mais lu ko waral tamit dafa am ay vidéo yoo xam ne ku ne dégg na ko. Mhm. ay nit ñoo xamante ni bii ñu naan nañ yàq màggal gi nañ def lii nañ def lii nit ñoo xamante ni bii nañ def lii yooyu ñu doon expliqué. mais loolu alaaji léegi nga baal ma foofu. xam nga loolu kuy nga xam day liggéey ci wàllu sécurité du xeeb wax yooyu. waaw c'est que yow même boo ko mënee xeeb moom sécurité bi dafa tegu ci loxoom. Mhm. du ko xeeb. d'accord waaw du ko xeeb quoi. il faut que. Mhm. moom it mu liggéey ci loolu nan la mën a def pour décourager wala pour kii comme que amul xibaar parce que ñooñu tamit mën na am nit ñuy wax rek coordonné dara. mais dañuy wax noonu parce que ñooñu tamit muñ naroon dara duñ ko wax noonu ci mbedd mi. foofu laa bëggoon a ñëw xam yaa euh, euh, euh, mhm. nit lañ yoo xamante ne bi ay électron libre lañ xamoo ban parti lañ bokk bu leen féetale sax ci benn parti. Mhm. man du leen féetale ci benn parti nit ki bu bëggee bu féetale ci benn parti am na kàddu yoo xam ne waru koo yëkkati yaa ngi dégg bu parce que man mënu ma wax ne maa ngi ci parti sàngam ba noppi di yëkkati yenn kàddu yoo xamante ne bi réew mi ñu ëpp dañ lay man mhm. damay jàpp ne nekkoon ci parti boobu d'accord yaa ngi da nga bëgg a taqal parti boobu mais mhm. nekkoo fa d'accord parce que dafa am wax yoo xam ne du waxu nit mhm. nit ñi di ko di nga koy def kon donc man du la féetale ci benn parti man damay jàpp ni bi ngay wax ni moom nga bokk sax nekkoo fa parce que da bëgg a yàqal ñooñu moo tax ngay waxee noonu d'accord comprendre loolu